dal leen ak jàmm mbokku internet yi salon international de l' agriculture ba xewoon ca Paris xeexoo xuloo ak i saaga la mujjee li ko waral du lenn lu dul jamarlo gu métti gi xew ci diggante ñi pare ci nguur gi ak activiste yi nekk ci diaspora bi jàpp ne anam yi nga xamante ne ci la ñu jàppee kile di Guy Marius Sagna teguwul ci yoon tey jii dafa mel ni takkandeeru Guy Marius Sagna dafa topp autorité sénégal yi ba tax ne fépp fu ñu mënti dem ci àdduna bi mbir mi daf leen di topp ci lu yàggul dala ci la njiital réew mi di Macky Sall dem fële ca Londres waaye dëgg-dëgg teewaayam foofu ay yuuxu la mujjee daanaka dañ ko yuuxoo ba ñu bëri daal di ruus ci mbir moomu kontaan naa lool seen teewaay fii waaye kontaan naa démb bu ma wàccee malgré sedd bi malgré guddi woon na fekk naa rek aéroport. balaa may tàmbali sama kàddu dama leen di ñaan yéen ñëpp ngeen jóg ngeen def minute de silence et de prière. jagleel ko suñu frère Adama Ngom mu Burkina Faso la moom bàyyee ko mu Cheikh Ndiaye ambassadeur la kon na sant kaa boobu incha allah buñ ci paree kon dëkk yëpp section yi waa Manchester waa Birmingham waa Écosse ak mboolem ñu jóge ci borom xeet bi waxtaan waa Belgique ak Pays-Bas ak waa Allemagne seen jublu ngoom seen jublu mbay Libérez Guy Marius Sagna libérez may la majorité boo ko bàyyi ñi nga xam ne ñoo néew doole wax tey jii ginnaaw njiital réewum Sénégal mu mel ni ministre yi ñoom ñoo jël seen wàll ministre de l'agriculture di professeur Moussa Baldé ak ministre de l'élevage Samba Ndiobène Ka ak ki nga xamante moom mooy ambassadeuru Sénégal foofulee ca Paris di Maguette Seye daanaka ñoom ak ñi ñu àndal te woon foofulee ca salon international de l'agriculture ba dañ leen a yuuxoo buntab dëkk boobu di salon boobu nga xamante daanaka dañu koo gàttal ngir diaspora nekk ay àndandoo ci Guy Marius Sagna ñoo saboté boobule événement bu Sénégal foofule ca France ak ay yuuxoo yu fort foo toll di dégg libéré Guy Marius Sagna nga di tul mel ni tulleeg màlle looloo waral ba ministre ba ak ñamu jotoon a àndal foofule ca salon international de l' agriculture ba dal di mer ba futtu ñàkk mën a muñ googule jëf tax ba ñi nga xamante ne nii ñooy dar ministre ba dal di jog dal ca kaw ñoo ñu doon yuuxoo mbir ma nag ay xeexoo ki fexe na ba indi fi coronavirus sénégalais yi fexe nañ ba jël corona xeex yóbbu ko France jaageen jëf bu ma agressé la journaliste dafa bàyyi dafa bàyyi journaliste bu agressé c'est la médias c'est la médias le gouvernement français qui nous a invités ici dans le pays. Nous au Sénégal, nous sommes en paix et la prière compte beaucoup. Et nous devons prier, je demande à toutes les autorités, à M. Balinga de prier contre les défis sanitaires. wax leen lu leen neex wax leen lu leen neex ah mais je filme qui m'empêche de filmer c'est quoi ah mais dama gën a filmer yow yaa kan ah

Sénégal, pense que seulement le Sénégal, et le vrai Sénégal, le futur du Sénégal, il faut que nous libérer D'abord, remercie le gouvernement français qui nous a invités ici et qui nous a accueillis. Nous, au Sénégal, nous sommes une terre où la prière compte beaucoup. Et nous devons prier, je demande à toutes les autorités, à M. Balinga de prier contre les défis sanitaires. Ah, mais je filme Qui m'appelle de filmer C'est quoi oh. Şöyle. Ne masana filmi. Yorarken. Thank you. Notre leader, c'est le président Macky Sall, c'est le président de la République. Nous, nous sommes ses soldats. Donc, nous savons dire cette commune. Je peux te vendre la vidéo après. Hein? Oui,

amul problème waaw